what up guys what up guys what's up everybody sama gars yi bëggee tey moom ma ci boole ay ree di ci boole ay sama xol mooy jeex quoi tu vois mooy jeex man dama nekkoon su ma gisee lu sama xol lu ko gaaw a jógal dafa métti quoi rawatina ak injustice injustice ak maanaam euh, néewal doole nit yooyu mu gën a gaaw a jógal sama xol moo tax loolu su may jóg di aaloo sax du ko tey quoi tu vois moo du mën a def di wax di rey nii quoi tey jii li jógal sama xol xam naa dina bett nit ñi sax mais man mooy li may wax quoi man du ma su may bëgg damay bëgg nga ya xel su may bañ damay bañ nga ya xel tay li bo gisé may wax li ma vidéo may def ni asan djouf motax makoy def asan djouf motax makoy def mais à travers liko dal ma defaale ci manam tay ji sama point de vue bax ni moom la yag xex té moom la gëna gëm diko xex tay ji asan djouf tay ji taxaw na waxal na sama leader Sonko lu ne makoy koy nangu il est libre de le faire ba ma koy waxee tamit tontoon na ko nonou quoi tu vois parce que man euh, en dehors euh, diversité opinion non man dama respecté doomu adam dama respecté doomu adam jëmm ci mungkin banyak bok a bokk appartenance politique banyak bok bañ a banyak bok dini, ngeen respect a adam. Tadi kita ngeen yang respect aadama bi te nit ki habitat semua yaa ngi respecté doomu aadama bi rek maanaam cohabitation bi day yomb mais boo xeebee nit ki ngëmam wala nga xeebal ko point de vue wala nga xeebal appartenance am loolu mooy indi conflit loolu mooy indi conflit du man du ma mës a toog bay xeex Macky Sall la ba tax may saaga ndey Macky Sall nit du du tax sama père respecté suma leader Ousmane ko bëgg ñuy gis à travers moi image am mais lu la yar mayul rewande mënu la ko may Assane Diouf d' accord ñoom ñoo xam policiers yi dem këram yan chef d' accusation la ñu ko tenir à son égard ba war ko cueillir à du matin ñoom ñoo xam d' mais la manière dont ils le font jaru ko jaru ko fekk nit dama la même les plus grands terroristes du monde def ku gis ku def trente attentats boo ko def mais bu la def ay attentat rey ay milliers de personnes mais bu la police française cueillir wala euh, wala wala américain yi mais dañ lay jël teg la chaîne la teg la jox la say droit jox la nga lekk jox la kafe nga naan mu lay laaj la mooy sa motif ku nekk sa ginnaaw. mais man li ma mën a metti man li ma metti ci police Sénégal man lenn rek la mooy police bi pour baadoolo la te je m'en vais venir au fait da ngay gis ko xam ne tey jii benn boy boo xam ne tey jii maanaam ñaari cornetu yamba ñaari jaay policier bi jàpp ko fekk ko fa. dóor kay taaru fetal mënate ko teg ko ci oto bi dëggate ko di ko dóor ba di ko dóor ba ba police ñu koy defee rek ñu tegaat ko fi di ko dóor ba rëbës mais li ma bëggoon noonu mooy la la la même pratique mais que vous le fassiez boo leen di jëlee Idrissa Seck wala boo leen di jëlee Karim Wade boo leen di jëlee Bougazeli wala boo leen di jëlee Aliou mais lu tax nit mën sàcc 6 000 ci dëkk di di dox nu ko neexee di dox sàcc 6 000 milliards ñu jiñ ko ko muy dox nu ko neexee amul policier bu ne ko hon parce que c'est le frère du président tay même fekk même fekkoon c'était avéré dafa sacc ay 6000 milliards bo len koy jël do len ko do mais 6000 milliards ak ñaari ñaari ñaari joint ñaari joint joint wu yamba bu gëna graw boy bi sacc beuy boy bi sacc beuy han ak ki sacc suñu fond comme jël ay xaama politique lu tax ngeen koy jël diko yob yóbbu wadi dikati do doo dóor koy taatu fi tak yeen budé ay politiciens ngeen dem utal ko nek bu baax policiers yi buñ koy jëli photo ak mom nakal monsieur le président on veut se prendre en photo mais bu dee le petit baadoolo ngeen jàpp ko dur ay taatu ay ndox ngeen jël ay balu fital di ko dóor seeni i bët ku jigéen ñàkk bët mais bu doon seen takk yu jigéen doo leen tuur bëtam dina leen metti amoon ndox nga xëy présenté ñu toj sa bët ñu yem seen i tànk te bu dee Karim Wade wala ay Idriss Seck ah wala ay ay Aliou Sall les de la république ñi jël suñuy 1000 milliards ba nga xam tey jii tuwal ndox yi ñu waroon installé pour am ndox amuñu ko yéen policiers yi boo leen jëlee ñoom doole en quoi faisant en Assane Diouf saaga yi muy saaga ñu ko daax saaga yi gën a ngand mooy Aliou Sall saaga mooy jël su 6 000 milliards la day porte plainte BP te ba léegi porte wu jël ay kaamil ne day waat mu tax boo leen jëlee Aliou Sall wala boo leen ko doo leen ko doo leen ko brutaliser comme noonu lu tax doomu Maxuj Njaay wala doomu jaaykatu keccax bi wala doomu madda baxal bi ngeen jël te booy boobu noonu dañoo sàcc xaalisam ba amatul ay moyens moo tax muy muy jaay ñaari yàmbaa wala moo tax muy sàcc bëy bu mu lekk wala muy xeex si nawetaani ngeen jàpp ñoom di leen dóor di leen teg si ay conditions yoo mais police Sénégal mais xool xoolal leen seen bopp étudiants yi bu ñuy ka bu ñuy kaas bourse trente six mille trente six mille yoo xam ne tey ji maanaam seen devoir la parce que dañuy jógee Casamance ñëw di photocopier di ci fay seen néeg si la ñuy si la fay seen néeg trente six mille doyu leen war ci fay seen chambre war ci gérer seen seen seen seen buuf bu ñu ne dañuy génn pour marché ngeen dóor leen ay ball bi rek la machine rey ñooñu noonu te pourtant bu yu mag yi doo doo doo leen def noonu koy jàpp flagrant délit ngeen jàpp ko bii bii lu jeex Franc bàyyi ngeen ko moom mu demaat gàlle bi déposé wu Franc bu doon doom baadal bi fay ngeen koy nekk dóor ko ba mu dee dóor ko ba mu dee te yoruma ñaari mu dee Sénégal on mais kii lii ban genre police la ban genre police la police boo xam ne brutalisé kese couvre feu boo leen génnee jàpp seeni frère ne civil mbaam la noonu la leen fa mel civil mbaam la ngeen di dóor seen di dóor di kii te pourtant ñi sàcc seen xaalis ñi sacc seen xaalis sacc seen prime bu leen waroon joxon bu leen prime dina jox 7.000 7000 francs le mois ñi sacc ñi sacc seen xaalis ñoon ba mu leen am prime sax 50000 mille euh, euh, euh, de nuit ñoon de dool boo leen jël dool leen dool dool fo leen ko tek hein nawetaan boo leen demé dool ku marché ni pacifiquement amuñu ndox dool ah ku ku bourse étudiant dool ku taxaw ne sonko ñu day dool moy non mais ma franchement je me demande man man man quel genre de police on a quel genre de police on a ah mais ñi ngeen war a dóor dóoru leen leen ngeen war a door billaahi dóoru leen leen ñi mérité ñu dóor leen ay liif dóor leen seen décharge électrique yi ngeen def ko ñooñu ñooñu dóoru leen leen ah ñi sàcc seen xaalis ba militaire invalide yi mënuñu jox seen xaalis lu tax dóoru leen dóor ñooñu militaire yi doon défendre frontière yi yi dëgg ci ay mine Casamance ah ñi seen jabar yi bàyyi leen ah amuñu pension bu baax militaire yi nga xam ne tey ji bu ba 45 ans gars yi libéré armée libéré leen pare ñu mujj nekk ay agresseur amuñu sax fu ñu mën leen fu ñu mën recycler fu ñu mën a mais ñoo ñoo jar a dóor ah sàcc milliards sàcc seni zircon sàcc seni pétrole hein ki boursam 36 000 mu marché mu tardé que la ñukoy fay député 1 million 300 muy fay 1500 impôt hein ah, té kaasaru la dara xamoo quatre député yow policier bi té bu dee bu député bi nga ne immunité déparlementaire immunité pacha pacha pacha pacha té dee dom baadal bi ngeen koy dóor avec satisfaction té pourtant leen metti pourtant dom baadal bi tegu leen ko dé leen metti dom baadal bi tegu leen ko ñoo ñoo leen ko teg ñooñu ñoo leen ko teg ñi jël seen xaalis di génn ay kaamil di waat ñu au moment où on s'attend équilibrage des des documents pour montrer la traçabilité de l'argent ñu ngi toog naan ay non naa porte deux deux plaintes ban ba léegi porté wu ñu deux plaintes toog ba mu yàgg ne dañoo corona gisoo preuve gisoo dara di fooyee la république seen doom yi di caxa caxatee xaalis bi pendant que vous policiers vous êtes au dehors di toog fii pa di di di veiller nuit balance ah pour couvre-feu bi jaar yoon ñoom ñu seen kër def lu leen neex di sàcc seen six mille milliards. ñu leen jox prime prime 7000 waa Sénégal gépp di ko ñaawlu naan vous méritez plus pourtant ñi koy ñaawlu ngeen di dóor de ñi ko sàcc nag toog xam ne tey jii maanaam ñoom bi sama olala oh ñoo tax seen prime yi duunul ñooñu boo leen di jëli yéen doo leen brutaliser ak si ak ak le montant ah, si important qu'il est doo leen brutaliser doo leen mës a brutaliser mësuma dégg ko si brutaliser euh, Karim Wade du temps muy muy muy muy leeral kenn du ci brutaliser Idriss Seck du temps euh, milliard Thiès tant d'autres tant d'autres bu gazali fa mu ne mais bu dee booy bi sa bëy ngeen brutalisé booy bi xeex si nawetaan yi ngeen brutalisé yéen daal baadoolo yi rek quoi baadoolo yi rek ah baadoolo yi rek baadoolo yi rek ngeen di jàkkamte jël di desaat seen biir ah vraiment da ngay dem doo looy looy bëggati wax quoi sama gars yi sama gars yi loolu woon quoi vraiment métti na ma trop quoi tu vois du question la personne de Assane Diouf ba loolu nag mais bu daloon keneen ku Assane Diouf sax damay kii quoi parce man injustice moo ma neexul quoi vraiment métti na trop quoi métti na trop Sénégal boo xam ne vraiment mooy loolu quoi mooy mooy mooy mooy c'est le c'est le summum quoi da ngay xool yoo xam ne sa xool day gën a tàng sa xool day gën a tàng day gën a tàng day gën a tàng sa waay maa ngi koy dal quoi vraiment je je perds bëggee.